waaw maa ngi ziar ñëpp di wax ne man la Assane euh, dëkk fii ci sanc bi fii di nekk tête de liste proportionnelle sur Rufisque fii ànd ak suma suma doomu ndey Jibi Saw mu nekk comme tête de liste fii ci noor bi lii ma fi dajale tey tax ma dajale fii nit ñi tey dafa nekk loo xamante ne nii dañuy jeunesse bi sax moo ñu gën a intéressé parce que dañu gis ne Sénégal dafa nekk ci moment boo xamante ne nii tey politique bi dafa sooxe trop ma bàyyi nag lépp lu ma doon def ma wàcc ñëw fii ci terrain bi pour mën a changer politique bi am fi mu am rupture parce que bu njëkk ba dañu doon gis rek des ñoom ñooy def politique jël alalu dëkk bi fowe bàyyi soxlay dëkk bi loolu nag la ñu wax ne tey jii dafa war a nekk loo xam ne dafa jeex kon boog mu waral ma man mii en tant que opérateur économique nekkoon ci beneen liggéey bokkoon ci ñuy wax ne duñu politique mais gis naa ne aussi euh, du waxu nit du ma politique saa yoo nekk boo ko waxee mooy ci ñu yàq si nga bokk ma ne nag naa wàcc ci terrain bi apporter jël jox sama loxo Seydou Diouf jàppale ko ci ci ci élection yi ñu jëm ni pour que au moins dëkk bi ma am benn changement par rapport ak ni dëkk bi doon doxee. waaw ñun ñu ngi jokk ci parti bu ñu wax PPC ku am fa comme président Seydou Diouf honorable député à l'Assemblée nationale. donc su ma demee aussi ba ànd ak moom tamit c'est parce que dama bi ma tey gars yi fi nekk moom laa gis ne mooy ki nga xamante ni tey ku ko jox dëkk bi mu defar ko ndax ku xool jaar-jaaram. xool fi yëpp depuis mbay Jacques nekk son directeur de cabinet pendant des années te booy xool tey jii li fi nekk yëpp ñoom ñoo ko fi defoon kooku laa jàpp ne tey ku ko joxaateen dëkk bi mu mu def mu delloo ko fi fi ko Mbaye Jacques delloo woon loolu laa moo tax ma ànd ak moom mu ndogal bi nag jóge ci suma waa gox muy waa sànc ba yii ñu dooleel ma surtout la jeunesse ñu dooleel ma présenter ma Seydou Diouf te wax dëgg yàlla bi ma ko présenté ba léegi nii aussi dara rëccu ma ko ci may kontaan trop ci jàppale ko même si ma nekkul woon koo xam ne ku ñu investir la sax dama koy jàppale parce que man maa bëgg changement bi am te gëm naa ne aussi avec cette jeunesse là boobu dina am ma ngi gërëm sax suma waa koñ bi waa sanc ba ñoo xamante ni vraiment su ma amee fit tey di jog ne maa ngi def ñoom ñoo tax yàlla moom moo moom dogal loolu jàngat bi ma ciy def ni c'est très simple te seetlu boobu moo ci def aussi moom la ci waa dëkk bi yëpp seetlu mooy que ne yore nañ dëkk bi pendant des années gisuñu dara loo xamante ne ni def nañ ko fii ñi yor nañ euh, seen i maire yi pendant vingt ans ñi yor nañ ko pendant quatorze ans ñoo xamante ni tey jii defuñu fi dara li ma gën a déranger nag dans tout ça aussi c'est ces mêmes gens là ñooy wàññeekuwaat ñëw di tàll laaj seen loxo askan bi di leen laaj baat mm-hmm. te loolu yàq jox leen baat moom toroxal sa bopp mënu ko passé loolu nag dafa jot tey pour que jeunesse bi ànd ñun ñi nga xam ñu ñoo bëgg a créer rupture bi ànd ak ñun ñu changer loolu politique boobu fi nekkoon wax dëgg yàlla du du du diggee man su ñuy wax diggé man du ci bokk saa ji dire nous on a un programme te man programme boobu moom ma tax a sax wàcc ci terrain bi wax naa ko sànq que man je suis opérateur économique mënoon naa yem ci sama liggéey moom mii jibi mii c'est un administrateur kon donc bu ko neexoon moom mu toog këram

parce que bu ñun bu ñu nekkee moom mu nekk ville jàpp naa ne lépp lu ñu bëgg dinañ ko am te lépp lu ñu yóotu aussi dinañ ko buñ ko xëccee mu ñëw incha allah.